di leen ziar nag ndax mbokk yi xam ngeen ni ñi ngi ci màggalu Touba ci bisub alxames ji tey suba di àjjuma di màggal gi ñi ngi fii ndindi kër sëñ Abdou Karim mu sëñ Fallou bi ñu ñëwee nag xam ngeen ñi ngi appartement mu soxna may laat bu Cheikh Abdou Karim waaye ñu fekk fi koo xam ne moo sëriñ bi démb la tey door a ñëw muy ajaratu Ndey Ndumbaan artiste international ngeen xam ko tey moom la ñu fekk si fii yaay ñi ngi ci màggal gi ni nga ni nga xëyee de tubaarkàlla macha xawla wala xawla ñu ngi sant yàlla di julli ci yonent bi di sant nag suñu ñaari waajur tabarkàlla macha allah di santaat Serigne Touba bu baax di sant nag Serigne Abdou Karim Mbacke sama Serigne suñu Serigne macha allah di ñaan màggal gi yàlla bu mu doon suñu mujjël gi màggal yal nañ ko teewee màggal yu bari yow nag Mbaye Diop ma di la ñaanal yaag ñi nga àndal mm-hmm. ak euh, borom site bi site bi waaw yàlla na leen yàlla defal jàmm te leen cat may leen gudd fan ak wér ak wér leen ma koy ñaanal sama njaboot ak njabootu ñëpp mhm. di ñaanal yàlla def ci réew mi jàmm ñuy ñaan daal màggal gi yàlla bu mu doon suñ mujjeel gi màggal waaye nag euh, Mbaye Diop mhm. Sénégal war na noo xoolaat Sénégal ah. mbay Diop ñun artistes yëpp ren suñu màggal waaw dafa dafa danoo jaxasoo mu metti lool nag ci suñu côté mhm. ndax fekk nit ci néegam mu nekk akub jarbaatam jël appartement dëkk ci néegam di artiste yi ñëpp xam ko muy Aziz ñu fekk ko fa rendi ko man da ñaawlu naa ko te kuy jaboot ñaawlu nga ñuy ñaan nag loolu daal réew mi ak nguur gi war nañ cee waxaat bu baax a baax mm-hmm. ndax dem bay dem bay rendi nit daal musta am ci réewum Sénégal dana ca néegam lañ ko fekk appartement am ña ko gis ñëpp nee nañ ca biir néegam mhm. fa lañu ko fekk mhm. rendi ko mhm. Aziz doonoon xale bu yaru doon ku baax man sa man artiste yëpp laa jaboote artiste yëpp a xam sama kër artiste yëpp ma bëgg xale yi fonk ma ñoom sàmba Diarra ak ñoom ñëpp ñi muy àndal ba ci seex Thiam ak xale yëpp macha kenn xamut loo màggal sama njaboot nag ñëpp danoo danoo bilimbaane daal kenn xamut loo màggal kon daal Aziz yàlla na ko yàlla yërëm te yeexami waaye nun ci taxaw lu mu gën a gaawee ndax artistes yëpp mer nañu de waaw waaw ndax gis nañu vraiment bi tiis yu dalee seen kaw artistes yëpp booloo mu mel ni lii nag euh, yàgg nay am waaye mu demee nii ci artiste mi ngi door a am tey boo doon wax nguur gi fi ne ak yoon loo leen di wax xanaa nag mu jóg ci nag def lu def ci lu ci war ba ñu ko ko def gaaw a feeñ ndax nag jotewul ak kenn dara mi ngi ci métier am macha allah muy aar mu di ko doxal te amu ca kenn xaar ma yàlla ah man boog xamalu ma ko lu dut lu baax ak jàmm wax dëgg yàlla man samay doom artiste lañu kon su ma gisee artist bu am lu la naqari ma artiste bu ñu def lu métti man daal du ma ko rafetlu te rafetlu wu ma ko Aziz daal jotewul ak kenn dara ci li ma xamoon ci moom kaf ree am ak ñëpp jàmm waaye nag fekk nit daal ci këram mu di artiste nga rendi ko gu lépp mi ngi doog am ci aar gu leet ma mas a gis nag ku mas dem ci néegub artiste deful la dara nga dugg ci appartement ni ko deq ren bi man de loolu maa ngi koy doog a gis te léegi ma am am naa juróom benn fukki at yu tegal mhm. liggéey ba retraité macha allah mhm. di ñaanal way dawlu yëpp yal na leen yàlla yërëm te yeexenu waaye daal lii ñu def Aziz daal maa ngi koy doog a dégg mhm. ba ma juddoo ba tey looy wax yaayam en tant que yaay ñu seetaan ko démb ndeysaan li mu wax mu daw yaram bi nga ko gisee. bi ma gisee yaayam en tant que yaay. Mm-hmm. wax dëgg yàlla buggatuma dara sama yaram yépp a daw. bi ma gisee yaayam. Mm-hmm. bi sama rangooñ yi wadd téyatuma ko. Mm-hmm. ku seetaan yaayam te am doom rek. boo dul artiste sax te am doom rek. sa xol naqari na. sa xol jeex na ndax defin wi ñaaw na metti na. defin wi ñaaw na metti na. lu waaw ndax loolu bu amul. waaye di nga gis kuy dox sax nit doxe la ginnaaw boo jëla paaka nga daanu fi mu nekk artiste yëpp tiit ak ku dul artiste ñun de tiit nañu man de wax dëgg yàlla su may dox sax damay geesoo ko wir wir dafa ne am na kuy ñëw ci sama kaw wax dëgg yàlla ku tiitul doo nit ndax fekk artiste bu la deful dara nga ñëw fekk ko ca néegam moom du wuyu du baat bi aar rek la xam nga ne ko deq rendi rendi waala jarbaatam ba mu dëkkal man a ah, man aji ndey nu mbànde ku tiitul man tiit na mhm. te ku tiitul nit mhm. li daal yàlla na ci yàlla ak yonent bi gaaw saafara ko li daal yàlla na jóg ci senegal li daal yàlla bu mu fi gaaw a amati te defoon nañ ko tamit politicien bu mag Fatoumata Matar Ndiaye fekk ko moom it ba biir néegam te sofóoram bi ko doon dawal mm-hmm. jege ko mm-hmm. moo ko ko def mm-hmm. a ah, saytaane la bari na doole waaye lii daal yàlla na ci yàlla gaaw a taxaw ci barke yàlla ak yonent bi Sëriñ Touba kii daal yàlla na feeñ ci barke Sëñ Touba ñu xam ne kan moo reen sama sunu doom ji nag. ñun artistes yi. fii tudd euh, benn xaritam mën nañ mu sukkay naan. dèjà nañ moom lañ mujjee gisante ak vidéo bi nga xam ne dèjà mu jéem ko posté. ñu mhm. ci bëri nee ci woo képp koo xam ne ko ci di wax ci loolu. xanaa nit ku ne wax li nga xam. def li nga xam. gàttal sa làmmiñ. gàttal sa tànk xam fooy teg sa tànk xam looy def. Mhm. te lu ci waay xamul. bu ko ci wax ndax loo ci wax. boo ca xabaabalee ba wax ci loo xam ne nii ëpp na man nan laa jël si ci enquête bi mm-hmm. man nag li ma ciy wax daal dama koo ñaawlu rek te bu doon ku dul artiste it ma ñaawlu ko mm-hmm. bala bala ñu laa bàyyi sa sa diggante ak sëñ Abdou Karim démb sëñ Abdou Karim Mbàkke nag mm-hmm. maa moom danoo yàgg macha allah laaw la cat ca ba muy nekk Pikine di bind téere kaamilam ba mu joxoon sëñ Abdou Laat ca ba nga xamee ni tuxu si na fii ca ba mu ñëwee golf ma ànd ak moom taawam bu jigéen bi soxna Maylaat ak yaayam soxna maam Ami ñoom ñëpp ñu bëgg ma tabarkalla macha allah. soxna Faat Bintu Puy soxna am si ci kër gi it. tabarkalla macha allah ak taalibe yi ak Baay Faal yi ak jëwrin yi. macha allah ñoom ñëpp am am na maa kër gi daal ñëpp laa amal jàmm. yow ba nga koy woy booba yi xewagul de. booba télévision la woon ca télévariété ca Maguette Wade. ca jamonoy télévariété ca Maguette bi màgget Wade ma jëloon jël ndem si yàlla sa Madiodio Ñingi jël ndem si yàlla sa Fattala Ndiaye jël ndem si yàlla sa ndey mari Ndiaye Gawlo yàlla na leen yàlla yërëm te yeexanu booba ñeenti ndaanaan ba juróom benn la boole ci plateau bi keroog télévariété boobu laa njëkk a woy sëñ Abdou Karim Mbàkke mu kontaan lool Mbàkke maa ñu ngi jégal bu baax ki nga xam ne mën naa ne moo di Sidi Diop wala doy na waar looy waxaat artistes yi bëggante wuñu lu xew lu mi ñu arrêté ngir ñàkk permis ci dawalam loolu bi nga ko yëgee muy sa doom ñu defeere ko xanaa mu naqari ma lool mm-hmm. ndax siidi Diop nag ku ko xam ci ambiance ak woy ak jàmm rek nga ko xam mm-hmm. kenn xamu ko ci leneen mm-hmm. siidi Diop nag maa ngi ñaan na ci ñëpp gaaw taxaw ñu génne ko ndax xamut lu metti xamul kaso du woyu du bandi lu baax rek la xam kon daal yàlla na ko ci yàlla gaaw a jële ndax ñoo dëkk way te jàmm rek laa xam ci moom mu baax lool ba nuy daje kër euh, soxna may mun a cuun soxna sëñ si euh, soxna seex gumbala mu baax mi muy dëpp ñu dëpp suñuy bool di ambiance mm-hmm. booba génnagul booba fëllagul mu yàgg lool mm-hmm. man ak moom ak Basiru Jaañ sama doom mm-hmm. waaye xamaluma ko lu dul baax ak yaru ak bëgg ñëpp ak tabe kon daal damay ñaan lii ko dal yàlla na ci yàlla gaaw teg loxoom sëñ Touba maa ngi la koy ñaan Sidi jóob yàlla na gaaw génn yàlla na génn ndax xamul kaso kontaan na xamul kaso Mbaye Diop maa leen gën a kontaan waaw waaw jërëjëf yow boo ma introsé ci lu bari damay ñemee wax ndax jàmm rek nga ma yéene kontaan naa ci yow